السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جنا بني سنتي يالا جل شوين انتمي نيون نين دي نيوات بو باخ باخ باخ دي آه، وخني فوتو بي في موي غار خيرا في لا يرنتي صلى الله عليه واله وسلم دا نيك دي ويتال بروامم دي جامو بروامم بدي واتي سي bari sana bi wàccee ci momit it la ko jibril njëkk a fekk daan ne ko iqra bismi rabbikal ladhi kon foto bi ñaan képp kiko partager rek yal la yalla may ci at mi nga def ci umra dal ci aji makka lepp lo ñaan rek yal na ko suñu borom defal ci barke yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam ci ñepp pepp ko gis dal yaan nang ko partager ñepp jot ci barke bi kon jërëjëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu